jàkka ja lu jaroon di naan dañ koy nangu jox ko kii wala kaa amu fa dara amu fa luy jar ñu naan nañ ko jox kii wala kaa ala xaal am na ci mbokk yi ñu ma ñaan njëkk waaye nag néewuma leen nañ nangu jàkka ji ci sama loxo jox ko kii wala kaa ndax jàkka ji moom mu ko jàkka ji maa ko tabax ci ndigalul kilifa ya fa nekkoon ci jamono yooyu waaye moomuma ko moomu ma ko ndax jàkka kenn du ko moom yàlla moo ko moom euh, kon daal euh, ci seen wàll googu am nañu ci bëggoon a jaar pour indi fitna ca dëkk ba loolu sax moo tax ma jokkook ñenn ci ñu dend ak kilifa yi pour ñu xamal ma ñu xamal kilifa gi daal na ko man euh, dara jarul ma ñuy def fitna ci barab bi ci tudd sama tur waaw dara jarul ñuy def Ehm, fitna ci barab di ca tudd sama tur ndax lislaam moom daf ñoo jàngal ñu ehm, wattandiku fitna ci kemtalaayu kàttan wala lislaam jàngal kon daal bu ngeen gisee ay ay réseaux sociaux yuy génne ay mbo ay photo yu mbooloo loolu sax d'ailleurs dara amu ci maanaam mbooloo yi ñuy génne ay mbooloo yu yu fa nekkoon pour leneen la xam naa ci jàpp ci jamono ñu jël mbooloo yooyu mon monte ko indi mon boole ko mbirum jumaa ji eh, léeg-léeg sax defe naa dama ciy gis sama photo eh, ñu de ñu bëgg a nax nit ñi ba ñu yaakaar ne maanaam barki démb la wala barkaati démb dara lu moom li am solo daal mooy man eh, fa ma nekkoon laa nekk la ma gëmoon laa gëm ndax loolu laa jàng tooñu kenn defe naa ne ci lislaam moom nit ñi yàgg nañoo wuute bi fi sëñ Touba nekkee ñu ngi woote ñenn ñi ànd ak moom ñenn ñi ànd ak moom sakkantuma nag ñi ñëw seen gannaaw am na ci sax ñoo xam ne ñii lañ dajeeg nit ñi kenn du ko wax fii lañ seq ak nit ñi ci ay coona kenn du ko wax fii kon nag euh, li am solo daal mooy euh, jàkka jaa nga fa nit ñaa nga fay jullee man wax dëgg yàlla fii laa fii laa nekk Dakar laa nekk léeg-léeg rek ma dem Touba pour samay soxla euh, la nga xam ne moom lañ fay liggéey ñu ngi koy liggéey. jàmmale bay bis amu ci lenn loo xam dañ koy def ngir ma sàmba wala ma dem demba duñ fay def rek yàllaa tax yàlla nag kenn mënu ko xeex moom yàlla diinul islaam la xam euh, xamut maanaam tariqa xamut euh, ay ngir xamut ay diinul islaam inna diina inda allahi al islaam loolu la suñu borom subhanahu taala wax diine diine daal pour yàlla moom mooy lislaam waaw li ci lépp nag wax dëgg yàlla mbir mi ku ci def loo xam ne lii jaaduwut tam gël ëllëg yàlla nga koy séqal ëllëg yàlla nga koy séqal doo ko séq ak man ku ci def lu baax moo lay fay ku ci def lu dul noonu itam euh, moom nga koy séqal kon nag mbir maa ngoogu daal ngeen xam ne daal maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax euh, ndax euh, li ma xam li may def ci lu baax ci fa ma dëkk moom kooku kenn kenn mënu ci dara maanaam li may def lépp ngi dugg ci biir jokk bokk ak def lu baax ci kaw loolu nag moom kenn mënu ci dara maanaam li may def Tuubaa ak la ma fay wax kenn mënuma ko sax ndax ay kilifa nekkoon nañ ci yu mag may dem ci ñoom te kenn mësuma cee wax dara lu jëm ci eh, samay xalaat du sëñ Abdou Lahat sëñ euh, Abdul Qadir sëñ Saaliw sàkkantuma nag keneen ñooñu ñëpp daanaa jaxas ak ñoom buñ ma soxla wala man bu ma leen soxla ñuy seq lu rafet lool comme ni ma ko daan seqee ak kilifa yi diine ci des ku mel ni sëñ Abdul Aziz taala wax dëgg yàlla moom bu ma saa gis sax dafa may xëcc daan dafa may xëcc taf ma ci ab dënnam moom sëñ Abdul Aziz saa bu ma ko ne asalaamaaleykum mu ne ma kooku kan la ma ne ko diw daf may xëcc taf ma ci ab dënam moom Abdul Aziz kon mbir mi moom euh, ay yàq dugg nañ ci moom ndaxte nag waaw ñu wax ko itam mooy suñu dëkk diine yi am na mbuxum am nañu fa am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñii tas dëkk moo leen fa yóbbu ak lu ñu mën a seen bopp nag ndax am na ay wax yoo xam ne yi ku muy génn ci sa ku muy génn ci sa sa gémmiñ boo ma nee sax jullit nga man day xaw a nekk dafa may xaw a jaaxal dafa may xaw a jaaxal waa ji ñuy wax Fallou si la man defoon naa ne sax amul amul jaxasoowu te kenn ci nekk foofu parce que moom li may dégg mu koy génne ci gémmiñam moom man damaa ñaam jot lool sax ci moom kon nag euh, foofu itam wala fi dañ naan ku am ay mbokk kenn mënu laa jëw bu fekkee mbokk yi ñu gore lañu ndax ndaxte euh, mbokk moom mooy ko wax ne ki léeg ngeen bokk dara waaye bu fekkee da ngeen di bokk bànneex te bu naqar ñëwee doo ko dégg doo ko gis loolu moom du mbokk waaw bu fekkee daal eh, mbokki xarit yi eh, dégg nañ yenn wax yi te te réseaux sociaux yi moom ñépp ko bokk kon au moins eh, mën ngaa jël réseaux sociaux yi wax ci la nga xam ci kooka ci lu baax waaw ndax man fu ma déggee ci nit ñi koo xam ne ki xam naa ne ku baax la ñuy dal ci kawam danaa wax ñuy dal ci kawam li nga xam ne moom laa xam ci moom ak ku mën di doon euh, ci fi daal mooy euh, ngeen xam ne euh, man wax dëgg yàlla yàlla suturaal na ma yàlla suturaal na ma ndax may na ma loo xam lii néew na mu koy may kenn ci nit ñi bu dee jàng jàng na eh, njàng mi li koy firndeel mooy fa ma doon jàng ba ma fay ba ma fay génn maa fa jiitu maanaam may major de la promotion fa ma doon jàngee ba ma fay ba ma maa fa jiitu te itam yàlla dogal na maay africain bi njëkk génn ci université arabe raw ay moroom loolu moom ci wàllu njàngum arabe mi la ba ma fa demee jógee ci français itam diplôme bi ma fa jëlee mansion ba gën lañ ma jox muy doctorat yi ci ci Sorbonne bi ma ñëwee ñu jël ma IFAN itam teewul damaa defaat beneen doctorat d'état doctorat boobu itam euh, feeg ñaari fan da ngay lay am fanweeri at bi ñu ko defee ak léegi moom itam mention ba ca gën laa am te doctorat d'état defe naa ne euh, ñi ko am ñoo xam ne ñu Tuubaa lañ cosaanoo wala ci daara yi génne fii ci Sénégal bareegut surtout jamono ji ma koy am man euh, askan bi ma bokk itam man maa ci njëkk a nekk maître de conférence 1992 maa ci njëkk maa ci njëkk a nekk professeur titulaire en 2004 kon loolu euh, wax dëgg yàlla ndimbalul yàlla la sutura la bu dee ci wàllu alali àdduna itam am naa ci lu ma mën a dunde waaw ah, te sukkandikuwuma ci kenn lu may sama xam-xam ba jii maa ngi liggéey retraite na waaye maa ngi liggéey te li may liggéey li ma ci am doy na ma sëkk samay doom yar naa leen ñoom ñëpp macha allah am na ci ñoo xam ne ñu sax fa ma àgg àgg nañ fa daanaka kon mbir mi daal euh, ngeen xam ne man moom ku may jéem a suufee la wala nga di ma attaqué da ngay da ngay da sonal sa bopp danaa ci danaa ci yokk sax li may mujjee mooy man maay africain bi ñu njëkk may mu def ab conférence ci jumaay makka ja loolu mi ngi amoon le 26 septembre 1983 may mboolem sénégalais sénégalais yi yàlla bindagoon man maa ci jëkk def benn conférence ca kanam kaaba ga ci jumaay makka te loolu kenn kenn yaakaaru ko woon mel lu yàlla dogal la waaye kenn yaakaaru même man sax sàkkuwuma ko mais dama jékki-jékki rek kilifa yi fa nekk ne ma sëñ bi ñëwal dem dem defi conférence mu jaaxaloon ma lool ndax booba xale laa te itam wax dëgg foofu ay ay mag laa fa daan gis eh, waaye nag ci ndigal ci ndigal kilifa ak ndimbalul yàlla ci laa ko def am ci ndam nag wax dëgg yàlla ndax ña fa nekkoon ñëpp kenn ku ñuul nekku foofu ña fa nekkoon ñëpp ay naar lañ waaye dañoo mujj sax songuma dégg coow coow waaw yow foo jàngi arab nangam nangam loolu lépp daal yàlla daf ne waa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla dafa lay xéewal da nga koy wax loolu moo tax sax ma wax ko waaye li ma koy wax bariwut ak itam comme léegi ñëpp dañuy dal ci sama kaw ku jóg rek dal ci sama kaw léegi itam nag ma wax nag man itam fi nga xam ne fi laa jaar xamal leen itam maa ngi sant man maanaam li li yàlla maye ci àdduna daal wax dëgg jox na ma ci aslëf li ci des nag àllaaxira moom kenn ëpp ma yaakaar ci àllaaxira te am naa fu ma ko teg itam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.